yoon waa asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info ah. nuyu kilifa diine kilifa di nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daayatu Moussa Chidina Moussa Chida di nuyu kilifa diine yëpp tey nag ñu ngi fii si Ndiassane ah, kër Abdou Lahat Ndiaye ah. di ko nuyu bu baax a baax di ko sagal eh, di wax rek tey moom ngéntewaat la gannaaw nag ba ñu gàmmoo pare dañuy ngéntewaat di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekk yàgg koo féete ci barki yonent bi ñu fekk fi nag waa axlu laam ñu jàkkaarloo ki nga xam te mbay guy gi mu war a bëre le 12 novembre ci diggante ki nga xamante ne moom mooy tafaatin ak Eumeu Sène mu nekk combat boo xam te ne ñu ngi ciy xaar euh, mbay guy gi gannaaw ba mu jugee ci armée dañ koy bàyyi nag mu nuyoo dugg ci waxtaan bi ndax gis nañ depuis lors mbay guy gi deful sorti deful dara heure boo ko waxee rek mu ne damay xaar xaar bi yàgg na dañ koy bàyyi nag mu nuyoo dugg ci waxtaan bi mbay ñu ngi lay nuyu. waaw Fatma maa lay fay di wax ginnaaw ban sant yàlla ñuy julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy nuyu ñëpp di nuyu waa Medina fi ma dëkk susuma nag sama dëkk muy reefan susuma it fa ma dëkk muy reefan boox maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama sëriñ sëñ Tafa Diouf borom booxa Njaañ di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu képp koo xam ne deretu bawol bawol mu ngi daw sa yaram rek maa lay nuyu baax di la ziar bu wér di la nuyu di nuyu sama papa Bada Dione di nuyu sama waa booy reefan di nuyu sama papa Dieye di nuyu abdu Sène di nuyu Abdoulahan Ndiaye mi nga xam ne tey këram lañu ñëw ñu ngi ci gàmmu gi quoi. Euh, nuyoo bi am na solo mais mbay ñu gis ne dépp ba nga jógee ci armée ba tey sa combat taxaw na mais kenn gisul mbay mbay mi ngi lalu la mbay la moo xew. non dara xewul xama nga tey ji boo nekk ay mag nekk ay kilifa chaque jours rek ñu lay teg ci yoon woo xam ne chaque jour mooy yoon wi nga xam ne mooy yoon bu normal kon aajowul ñu ne ci média yi di wax. daanañ ne ci média yi di wax di wax di wax léeg-léeg ñu wax erreur léeg ñu wax loo xam ne normal na léegi nag dañuy dem ba ñu yedduñu pour ñu tegu ci yoon woo xam ne yoon wu normal la ko léegi loolu moo tax rek ñu toog kuul kilifa yi sax nañu bu lu ñu wax loo mais yow xam nga yow ba nga ma ci toppee yàgg na sax def jëluma décision sax wax billaay wallaay taala parce que it yaa ma gën a xam bu ma waxee it mooy lool te man damay tàng mën naa fi toj pénk gars yi dagg la fi dugal la fi ñu lay waaw di la tiktok ak yooyu te yooyu lay bañ léegi nag ñu ngi matir quoi tuuti. Mhm. Mbaye euh, saison bi tijji na mais saison passée Mbaye ban jàngat la am ci saison bi si say combat ak yeneen i combat mais jàngat nga am ci saison bi passée. ah saison bi passée jàngat yi ci am mooy jàll na ci ni mu war a mën a jàlle xëy na noonu la war a mën a jàlle mais neex na macha allah di ñaan lamb yi nga xam ne am na violence rek yàlla bu mu amati. yàlla bu benn làmb làmb ji tijji na yàlla bu benn amati la ah waaw comme sama combat ak armée yooyu yëpp xam nga am na ay kii yoo xam ne yooyu yëpp erreur la am naa ci jàngat bu baax ci wàllum wax man bi mu amee laa xam ne am na fu ma sénégalais teg parce que fu ma jaar dañ naa ma ee eh, lii ee eh, lii ee eh, lii affaire yooyu xam nga moo tax nag ma xam ne man tey jot na nag ma réserver sama bopp toog xam ne dara laa ci dëkk bi quoi mais dama doon nañaxu rek man di dem quoi kon boobu mbay guy gi valeur bi mu am. Mhm, bi ma defee bi erreur yi amee sama combat nag ci laa xamee ne nag ma toogaat xam ne am na ñu topp sama ginnaaw am na ñu may tiitaroo am na ñuy daj ay coono ci man il faut ma toog respecté sama bopp waaw parce que moytu yu bëri daal. Mhm. soo doon joxe meilleur combat ban combat ngay joxe ci saison passée. meilleur combat. a ah, combat ci xale yi ah xale yi Ameth Lac laay jox meilleur combat rek nde jël bu la daan jël bi mu daan gisuma benn booy bu ko daan ci làmb bu dee combat bu mag kom komba bu mag mais làmb ji ren est-ce que na combat yu mag comme ñaata mbër yu mag a fi bëree ren Balla Gaye bëri na ren Balla Gaye mook booy ñaa mooy ren hmm. Bombardier mais mais combat yooyu yëpp rëg-rëg Sa kay boobu kay mooy meilleur combat bu neex rek boo xam ne bëri woon na coow te gis nga la ca am waaw boobu combat moom benn combat dàqu ko ci quoi xanaa erreur de arbitre fa am noonu rek mais combat boobu combat bu neex la quoi. gannaaw mhm. ci loolu ñu ñëw nag ci sa combat ak Marley ñu gis da nga jël Marley ñëpp ne mbay guy gi waru ko woon jël affaire yi egsi na si yow ñu gis nag mbay guy gi même bu musul am combat de choc mi ngi combat bi combat de choc la sa diggante ak Marley moo tax nga jël euh, Marley. waaw maarle sunu gannaaw la def lu ne ci làmb bëreeg ñoo xam ne tey jii ñun bëreewuñoo ak ñoom mu doon sunu gannaaw nangu ñoo may chance ñu proposé ko mbay guy gi proposé ko yeneen adversaire mu wàcc fa ñooñu ñëw jël mbay guy gi kon xëy na mbay guy gi am na lu mu fi def moo tax mu jël ko teg ci doon gannaaw boo xam ne gannaaw bu kuul la yaa ma gën a xam. te mu leer ma ne man ak moom it buñ bëree dina neex parce que day taxaw du daw du dem fenn day dëggal boppam man xam nga ne kuy dëggal sa bopp moom mbay guy gi waxi noppi mooy dañuy dox daje rek mu gën a neex moo tax ma xam ne kii suñ combat man ak moom daa nar a neex ma sawar ci combat bi rek. Mhm. mais le fait que ñu àdduna man su ma sañoon képp ku may bëree rek nee nañ moo man lenn ma ñor ci làmb mhm. arbitre jàpp sama loxo ne ko nii ma ñibbeeg samay mbokk xooluma daan bu rafet xooluma dàq bëre làmb ji lu fi am yenn ruut ci suuf palaake cabaxal mboot bët loolu yëpp am na fi di dañ faa àggagut ak mbër yi ni bëreet rek mais liñ leen jotawan gis nañ waaw mais loolu du dara xam nga àdduna moom tey jii nit ku na ciig rek li nga xool ci moom ngay gis parce que imagineel tey mbay guy gi moom xam looy xool ci moom yow mi ko faralut bëggoo ko yaa ngi xool ci moom mënta bëre xamul dara lool ngay gis chaque jour déggoo ma de non loolu boo koy dégg ci ñi la bëggul nga koy dégg ak ñi la faralul xam nga mais mbay guy gi ci ay supporter am mu ngi dégg mbay guy gi man moo dàq bëre kenn dàqu koo bëre ci làmb ji mooy mbër mooy champion ku ne ci ak ña ànd yow rek lu la neex rek lañ lay wax ku àndut ak yow du la wax lu la neex waaw. mais ni ñi mu bëreel mbay guy gi bëreewu ko ñëpp dañ ne Marley moo dàq bëre ki nga xam moom mooy mbay guy gi Marley euh, mbay guy gi amul chance ci combat bi mais lan lañ mën a xaar mbay guy gi ci contre mais dañuy bàyyi ba arbitre soufflé rek ba arbitre soufflé dinañ xam mbay gi am na sens wala amul sens man xamuma miir bi ak xobi lingom yii balaa nga xam arbitre bi ne ma pare nga ne la pare nga barki Seydina Muhammad amul lu ma xàmmee man mu takku samay affaire ba ñëw taxaw <laughs> dinañ xam ba xam kii moo man wala kii ma man man amul lu may tiit ci mbër def naa erreur taxaw xaar fi mbër jëlee ca lu ma naqari dootul am ci àdduna pirip nañ daje lu am baax na. ma conche. bu ñëwee ma ñëw. bu ñëwee ma ñëw leneen daa mën am. man sax damaa taxaw di xaar di léewtoo di jëmale suba di tardeel benn amateur. wallaahi azim baar bi suuf lee maay dal ci kawam. billaahi wallaahi lu ma fa fekk baax na ndam yàllaa ko yor te gëm naa ne ci kàttanu yàlla ah. le 12 novembre arbitre man lay def nii sama loxo. liggéey. ak ñaan ci yàlla sunu borom kese ak am sama gëm-gëm. Marley dafa benn woy boo xam te ne Lirou Diane da ko ko weer chaque jour. Marley yaa. yaa luur. mais mais man du ma luur di. man Mar man Marley yaa ay ji luur man du ma luur maa ngi Marley tolloo ay moroom lañ. Oh. moo ma mag nag sama ganaa la mais ñoo tolloo. Hmm. Mhm. mukk ci àdduna Lirou Diane moom aw ma leen lu may wax ak moom moom altu ndàngal ma la dëkk bawol bawol bu génnu xeet la. dégg nga bawol bawol bo liiru jaan li mu naan géejawaay du dara dëkkut géejawaay altu ndàngal ma la dëkk liiru ndàngal ma la dëkk xam naa ba seen kër ba fi maamam juddoo yaayam ak papaam yëpp xam naa fa ba am fay turandoo seen seen kër na kër ñoom liiru jaan gi ne ndàngal ma foo jaar man ngaa jàll hmm. li mu ne ndakaaru gii di jaay jomba ñaaw du defar seen kër gi altu ndàngal ma hmm. kër goo xam ne mu nga ubbeeku tas fu ne foo jaar jàll li mu ne ndakaaru gi naan géejawaay gi te dëkk te dëkk altu ndàngal ma doo ñëw defar seen kër gi ba mu defaru jekk naais mais nga toog naan géejawaay géejawaay te defaroo fa nga dëkk bawal bawal bawal piir la kon liiru jaan waaw Lamine barke Seydina Mohamed bawal bawal la ndàngal ma la dëkk xam naa ba seen biir kër kon eh, màggat bu génnu xeet nag dëkkaale bu génnu xeet ah. waaw mais loolu du dara man géejawaay am naa fa kër papa Dieye jëndal na ma fa terrain. moom nag di jege woon. barke alxuraanu karim jëndal nañ ma fa terrain te dinaa ko tabax ba mu jekk dëkk fa. waaw. mais adversaire dafay làmb ji kenn daa moom ndakaaru Njaay nee naa leen Dakaaru bàyyi nit kenn moomu ko hmm. ku am sa xaay jëndal sa kër fi nga bokk ku moom Dakaaru dama lay laaj ba xam ndakaaru daa am wenn sant Ndakaaru Njaay jal nda Ndakaaru Njaay jal Jóob lañ la wax. Jal joob mooy ñëpp. barke Seyd man géejawaay barki dee moo Njaay demoon naa fa te fi mu ne nii rek am na lu ma war a jëli kër Papa Dieye dama fay demaat daa moom géejawaay. kër Marle lu kër Marle demu aw non xal non loo foofu moom du ma fa dem. Hmm. bu ma fa demee tooñ. Marle fi mu ne nii ñemee te ñëw Midina sama koñ bu dik ko neexee na ñëw Midina fépp mais sama koñ du fa dik parce que day xam ne ci làmb lañ ne. mais bu subaa bu arbitre bi sifflé fu mu ne jaaral foofu nga jaay seetaan nga ko sax mbay ragal la moom di koy ko yéex a dégg ci làmb ji. moom loolu la non non moom Marley garaawul kooku sama garaaw la bëgguma ko wax dara. Ah, xam ma Marley lan laa koy wax. maa ngi koy ñaanal wér di ñaanal sama bopp wér di la wax ne ci kàttanu yàlla. le 12 novembre. dama koy jàpp daan ko. ñëw yëkkati loxo sama garaaw dugg ci yàlla yi tafaatin mu jàpp ma seen daan ko ñu dem bawal feete ji ndam li. Euh, Mbaye Gouy Gui xeex ak ki nga xamante ni tey moom mooy mbaar de xeexam moom samp jaaga. man victoire ma ñor de xooluma lu neex ab amateur wala lu neex kenn xam lu ma lu ma lu ma xool lu neex samay supporter victoire nu ma ko ame baax na. ah mais amul dëkk bi tàng rek. ah mais Mbaye bi ma gisoon ak bii dafa am différence. déggoo ma de ah. ñoo ngi liggéey te ñu ngi ci roq bu bu bés baa ban simmeeku ah. dinañ xam ba xam nga làmb jooj li ci neex ay xale kese ciy bëre buñ simee ko ba mbër mu ne daw jaar fen nga xool ko di nga xam ku pare ku parewut merci loolu runkum daje yaa ngi maara di ko bëgg runkum daje rek laa bëgg nag jàppante ku ne jàpp bëre si ku ne ku geño waaw boobaa damay kontaan bëgg nga bëre ak Marley wala bépp mbër bu ne ci làmb ji ak koo mën a doon buñ xasee ne renkum maag yow ak koo mën a doon bu ma la xasee jàpp yow sa làmb pare nga ci yow leneen ngay xool jàppante rek làmb ji kon say samay supporter man fu ma mas a jàppe ñoom jóg nañ ñen ñaa ngay wàcc te jël du amagun ñen ñi dem seen yoon man képp ku ma jàpp dama lay daan mënoo ci dara mën nañoo say combat du de ma de fii ba ginnaaw suba mën na maa bëre nag waaw man de liggéeyatuma dara lu dul physique endurance kese. pour bëre ba suba. ah ba tey yow doo nga bëree woo ci ah gis nañ sa garant Tafatine Eumeu Sène mu nekk combat boo xam te ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel combat boobu nan nga ko gisee. ñu ngi waaj ànd ak suñu garant Tafatine chaque jour ñooy bokk entraînement di kontagandoo di def lépp di àndandoo di entraîné di def lépp ne suñu ruq yàlla mu yor ndam nag ñu ngi koy ñaan ndam mais yàlla li maye bu ko nanguwut ci kàttanu yàlla dafa incha allahu rabbi da koy duma daan ko. yàlla li maye bu ko nanguwul laaw ci kattanu yàlla dafa day duma Eumeu Sène daan ko. da koy duma daan ko. ak yow Eumeu Sène euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Modou Lo Ama ñu gis ne billets yi dafa génn jur benn polémique ñu gis ne 10 000 la commencé 50 000 200 000 nan nanga gisee loolu. ku amul nga toog sa kër. mais bi jar na jar na billet am supporter cinquante mille Ama Baldé Modou Lo benn supporter cinquante mille jar na ko lamb jooj la àdduna bépp di xaar yi képp kuy dund làmb rek làmb jooju moom moom la ñëpp di xaar ñun ñii sunuy làmb lamb la de mais lamb Modou Lo Ama Baldé moom la àdduna gépp di xaar daa suul mais nag mooy loolu de mais ay bu bés yaa bu sun combat yi jotee ba bés yi ñëw la cinq bu jeexee nga xam ne yeneen combat yëpp combat la. kon billet yi fi ko teg baax def baax na mais làmb ju toll noonu boo deful noon billet yi doo ciy génn. làmb ju rëy la et puis àdduna gépp a koy xaar. neex na ñaari naataango lañ daal sa le maire gañ waaw. bay kontaan ci yow sama xarit. waaw maa ngi kontaan yow di nuyu Abdou Sène sama doomu nday sama xarit jarbaatu Dieye. di nuyu sama papa Dieye bu baax a baax. di nuyu it sama papa Abdou Aziz Ale Ndiaye bu baax a baax baax a baax mënoon naa tëgg ay combat xool ñeneen. mais da leen a woo ne leen Mbaye Gouye Gui bëre spécial bi ak mbër mu ci mën a bokk kon loolu xam nga ne yëg-yëg la quoi di nuyu Cheikh Thiaw sama doomu nday sama xarit di nuyu Babacar bu Mod Lama Mor Diouf Dame Cissé Laat Cissé ñoom Pono Moussa Diop Peter daal maa ngi nuyu ñëpp Mbaye Fall maa ngi koy bëgg baax mbay Ndereb maa ngi nuyu Idi borom États-Unis Seexu mbay sama doomu nday sama xarit Idi itam maa ngi koy bëgg bu baax sama doomu nday sama xarit kii nag sama booy la dama koy sant di ko gërëm muy ñaa xarañ sama booy la ñaa ax ma ngom sama booy sama rak sama doom koo xam ne day ñëw sonn ci man ne ma li may dàq mu jëm ci àll bi ma dàq mu jëm ci sama papa te man papa am laa mais ax ma maa ngi koy bëgg baax ñaa xarañ sama fils sama lépp aw ma fayam maa ngi ñaan yàlla mi am fay yàlla na ko fay di nuyu Mouhamed Mayo sama doomu ndey sama xarit di nuyu daal képp koo xam ne yaa ngi jàppale mbay guy gi muy nga dégg ma ma gërëm la ak ma ñàkk laa gërëm maa ngi lay sant moor Baye faal sama doomu ndey borom centenaire ak Maas Malick mécanicien ñoom liiru sama mag yi ne Colobane yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Cheikh Ousmane Balla Mbaye Abdou Khadir ñoom ñëpp maa leen di nuyu di nuyu sama papa Bada John booy reefan waaw ñoom ñëpp toog lii mooy làmb ah affaire violence affaire affaire violence ak yooyu noonu amatul ci làmb xam nga léegi nu def ku ne ci xool noo defee dimbali say waajur am loo kër ga. parce que ñun ñëpp pour dimbali suñuy waajur moo tax a jog kon yaa ma gën a xam dafa war a mën a rafet maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mbay Fall sama doomu ndey sama xarit mbay Ndereb maa ngi gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax a baax a baax aw ma fayam maa ngi koy bëggee baax maas maa ngi koy bëggee Abdou Taal it maa ngi koy bëggee Abdou bu mbay guy gi sama doomu nday sama xarit ñoom Moussa Sam waaw Fallou Fall Touba Fallou bu mbay guy gi sama doomu ndey sama xarit Fallou Fall maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax moo de andaa koy xëccoog man mais day xaar non mook pëti mook pëtee koy xëccoog man Fallou Fall Touba kooku sama waay la kooku bëgguma ci benn coow ak Fallou ak ak Abdou waaw rendez bi daal doom day la 12 novembre pare nañ ànd nanoog suñuy mbok ah. te bu ñëwee dinañ xam ne pare nañ mais lu manaam a am ah. arbitre ñun la yëkkati suñu loxo incha allah lu mën a am ah. arbitre bi nii lay def suñu loxo lu mën a am arbitre suñu lay yëkkati waaw le douze incha